فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني بأدلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk أه، القرآن ak sunna ñu نيو leen سنبرم تبارك وتعالى mu saxal ñu te saxal leen ci siraatal mustaqim may ñu ak mujj gu rafet ñu del siwaat ci jotaay bi nga xam ne dañ koy amal ci tur wi la muy masaadiru talaqi inda suufiya muy waa tasawuf jëf yi ñuy def te mu wuutee ak njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam wuuteeg alquran ak sunna ana fu ñu ko jële ba dugal ko ci biir lislaam bii nag mooy jotaayu ñaareel bi jotaayu ñaareel bi nag bu ñu ko bëggee tënk dañuy wax ne asuufiya seeni masaadir muy seeni delluwaay amna yo xamne ci bir l'islam la ne ñu di fa dellu ak seen dégginu bop mu duggal len ci ay gijaawale mu am ci yo xamne nak masadir masaadir la manam ci biti l'islam la nek nekul sax ci bir l'islam waye and ak lolu yeb ñom amna yu ñu fa jele ba nopi ñew dugal ko ci bir l'islam loola it du doon lu mooy ay gijaawaali rek boo seetloo nag yi nga xam ne jële nañ fa dugal ko ci biir lislaam yu bari la waaye tey jii wala jotaay yii di ñëw dañ ciy tànn loo xam ne ñu ngi ko jëlee ci an nasraaniya ñu ngi ko jëlee ca nasaraan ya loola nag biñ ci njëkk a jël mooy li ñu tuddee arrahbaniya arrahbaniya nasaraan bi ñoo ko fent ba noppi boole ko ci seen diina arrahbaniya nag bu ma la ko bëggee tënkal ñetti doom la jur arrahbaniya moo jur alinizaalu fi zawaaya wa takaaya loolu mooy bu dee ci biir lislaam bu nasaraan bi moom moo jur alinizaalu fi sawaamii maanaam beru dund gi nit ñi di dundu dem ci ay àll tabax fa ay néeg dëkk fa ci yéenéeb ne dañoo bëgg a gën a góor góorlu ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy ca nasaraan ba waaye su fekkee ne ci biir lislaam la waa tasawuf ñoom ba ñu ñëwee ñoomit ñu sos lu ñu tuddee ay zaawiya sos ay néeg yoo xam ne wuutee naag yañ xamee woon jullit ñi muy ay jàkka ndax jullit ñi jàkka lañ leen xamee woon ñu daan fa dajee di jàng di jàngalante ñoom ñu ndaa di ñëw sos yi ñu tuddee ay zawaaya ak ay arbita dégg nga kon xaysiya boobu muy tomb boobu waa tasawuf jëggaani nañ ko ca nasraan ba mu amaat beneen tomb boo xam ne ci biir nasraaniya rahbaaniya moo ko jur mooy at tabattul mooy li ñu tuddee tarku zawaaj bàyyi takk soxna loola it nasraan bi dañ ko daan def ngir jàpp ne loola day tax ñu gën a mën a góorgóorlu ci jaamu yàlla subhanahu wa taala tasawuf waxuma tasawuf tey gii nag danaa ci ñëw leeral ko waaye tasawufuk démb boo delloo ci seeni masaadir rawatina al masaadiru al ariqa fi fi fi fi tasawuf mu yi nga xam ne dafa yàgg lool ci tasawuf dangay ngay fekk ne loola jëggaane nañ ko ci nasaraan bi di ko digal seeni nit te yooyu dinañ ci ñëw incha allahu naka la waa tasawuf daan digalee seen taalibe ñu bañ a takk soxna ak ay ponkal si ñoom ñoo xam ne dañoo bañoon a takk soxna nga xam ne takk ñoo takk soxna ngir balaa lëntalkat yi di ñëw bañu ñoo takk soxna ngir ne ñoom euh, ñàkk a takk soxna jot gi lañ amut dañoo amul jot gi wala dañoo am feebar wala yu mel noonu du loolu de ñoom dañoo bàyyi takkam soxna ngir jàpp ne day taar del nit ci digganteem ak yàlla subhanahu wa taala loola yi jëggaani nañ ko booba it rahbaaniya moo ko jur rahbaaniya jur beneen doom mooy aljëhlu aljëhlul mutbaq mutbiq muy réer goo xam ne daa kooba nit ki wër ko ci bépp béréb ndax xam nga ne boo demee ca àll ba ku jàngul dara ci diina dem ca àll ba beru ne day jaamu yàlla subhanahu wa taala kooka la muy yàq moo ëpp la muy defar waaw la muy yàq moo ëpp lu muy defar kon rëhbaaniya ñetti doomam yi mu jur muy tabatul bañ takkam soxna ak ayubal ko ak suufeel ko ak it dem ca àll ba dëkk fa beru nit ñi ak jamu jaamu yàlla bu teguwul ci xam-xam ñett yii moo ëmb rahbaaniya te suufiya dem nañ jëggaani ko daal ñëw dugal ko ci biir lislaam tomb biñ si tànn tey nag mooy bañ a takk soxna muy liñ tuddee tabatul loola sikki sàkka nekkut ci ne nasaraan bi loola ñu ngi ko boolee ci seen biir diina daan ko jëfee bu baax a baax a baax daan ci ñaaxee itam bu baax a baax looloo tax waa tasawu bi ñu ñëwee loola jëggaani nañ ko jëggaani nañ ko ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ket gu mel noonu mu ngi commencé woon ket di jéem a dugg ci lislaam soo ñëwee ci xadis bi ñëw xadisu raat muy xadis boo xam ne mu ci saxiixay ni nga xam ne ñetti nit ñoo ñëw ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam laajte yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wàllu jaamu yàllaam bi ñu ñëwee laajte ko ñu wax leen ko ñu ne leen a ah, moom de day woor léeg-léeg mu dagg day nelaw guddi léeg-léeg mu julli day lekk yàpp witam ñu ne ah loolu daal dafa tuuti ndax ñun bokkuñu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent bi yàlla da koo jéggal bàkkaaram yu njëkk yi ak bàkkaaram yu mujj yi waaw kenn ki ne man bis ni tey dootuma dagg damay woor suma dund bi yëpp keneen ki ne ma itam bis ni ki tey bàyyi naa nelaw guddi keneen ki ne man mii bis ni ki tey dootuma takkati soxna keene duma lekk yàpp ku nekk wax lam wax ba yonent bi alayhi salaatu jotee ci xibaar bi dafa yéeg ca minbar ba woote nit ñi ñëw mu ne leen waaw daa am ñu ma dégg ci yéen ñuy wax nangam ak nangam ne leen nag maa ngi leen di gëñal ci yàlla di leen waatal ne leen maa leen gën a jege yàlla maa leen ko gën a ragal te ànd loolu yépp damay woor di dagg di julli guddi di nelaw di takki soxna te it di lekk yàpp daa dina leen fa man raxiba an sunnati fa laysa minni ku xeeb nag li ma ne ci xeetu jaamu yàlla ak ci pas-pas ak ci jikko yëgal ne bokkatoo ci man fa man raxiba an sunnati fa laysa minni ku xeeb suma sunna bokko ci moom Uthman ibni Maz'un moom it bëggoon naa def tabatul muy bàyyi takk soxna yonent bi alayhi salatu wasalaam tere ko ko ben sahabi ne walaw adina lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam laxtasayna su ko yonent mayon digal ni ko non ñun danañ tap suñ bop ngir sori jigen ñi waya yonent bi jàngal len na len takk soxna yàlla da ko digle te dafa bax ndax sila ay dom yuy wétal yàlla di soso yu topp alquran ak sunna yu jihaat ak noonu yàlla yi si la sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama di puugaréewantiw ak xeet yi yeneen xeet yi ëllëg yowmal qiyaama ci bëri njabootam ak seenu mbaax waaye ànd ak loolu yëpp waa tasawuf dem nañ jëliwaat xalaat bii nga xam ne mooy at tabattul terewu ci takk soxna sori ko ba noppi teg si it nag di ko ëyubal e, comme ni ma ko waxee mbokk yi ku dégg nag dar sub tey bii ak li ma ci nettali ci waa tasawuf ak takk soxna bu xoolee ci mutasawifa tey yii day jàpp ne li ñuy wax nii dañ koy wax rek waaye bu mu xool foofu na dellu ci téere mutasawifa yi foofa lay dellu dañ ko jox ay téere yoo xam ne mën na fay dellu ndax tasawuf moom daanaka cocktail la rek waaw cocktail la maanaam daa bëri am njaxas tey jii lii fa yii di def bokkut ak fa démb yi yañ doon def ëllëg it yey ñëw bokkuñook ñoog ñi nekk tey li ñuy def ndax démb fa yu njëkk yi dañu dëdd woon àdduna dëdd goo xam ne dafa jéggi dayo dafa jéggi dayo waaye fa tey yii xam ngeen ne meluñ noonu dañ doon bañ a takk soxna ñu bari si ñoom ci anamuk xeeb tak soxna jàpp ne day dox sa digganteeg suñ borom tabaraka wa taala waaye tey mutasawifa tey dañuy takk lu ëpp li leen sharia may ci soxna dañuy takk lu ko ëpp waaw da ngay gis si ñoom koo xam ne day day takk téeméeri jigéen waaw am ci ñoo xam ne dañuy takk fanweer ak nangam waaw xam nga ñooñu boo leen comparer ak ñu démb dangay gis ne suriwante nañ lool waaye tasawu tasawufa mel noonu am njaxas la rek ku sa ñëw ku nekk rek ak mbubb ma ngi koy solal léegi nag dama bëgg mën a yéen ñu ànd dellu ci kutubul mutasawifa yi seeni masaadir ak lenn ci seeni wax ci li nga xam ne ni moom mooy dëdduloo nit ñi walis ñuy takk soxna gis nga boo ñëwee ci téere bi ñuy wax عوارف المعارف كيكو تالف موي السهر وردي wardi كبير تصوف نينا التزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخص من تك سخنا دا ملني نيت كي دا واتي تي اسكالي بو خامني موي اسكالي و دوغو فراتا نيو ay yombal yoo xam ne dañ ko koo yombalal rek wa dawaraanun xawla madaani li iwijaaj nee ne ki koy defit day wër ci béréb yoo xam ne moom war na xam ne dana fa jëlee bàkkaar dana fa jëlee ak jeng wal waltifaatun ila dunya baada zahadati gestu àdduna la gannaaw boo xamee ne dëddu nga yow mutasawif bi wan nga gannaaw àdduna dëddu ko nga dëppaat ñëw ne da takk soxna wan itaafun ala al hawa fas yéene nuur la itam ak di wër ci li nga xam ne nii moom mooy bànneex kenn ngi noonu ak kàngam la loolu mu ngi ci téere bu ñëw awaariful maarif soo ñëwee itam ci al-Ghazali ibnul jawzi toxalal na ko ci téeram bi mu tuddee talbisu iblis alxazali ne yanbagi an laa yushgila al muridu nafsahu bi tazwij mu ne taalibe bi war na fexe ba nga xam ne du yittewoo takam soxna mu ne fa innahu yashgaluhu an suluki wa yanasu bi zawja ndax loola da koy yàqal suubu yoonu yàlla wi ndax day mujj wéttale ko soxna si te waman anisa bi xeyrillaahi shugila anillaahi taala te ku wéttale koo ci leneen lu dul yàlla loola day mujj soxal la yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi da ngeen yéemu su fekkee ne gis ngeen li ngeen xam ne Sha'raani da ko nettali muy loo xam ne yéeme na lool nag ci tabaqaatam bi nga xam ne lu ne la fa si njaxasum waa tasawuf am kenn si ñoom koo xam ne pour bëgg dëddu àdduna ak dëddu takkom soxna jaral na ko mu daa di dagg li nga xam ne nii moom mooy awraam ba nga xam ne loola moom su boobaa dootu ko aajooti loola yëpp ngir ak xuutal ak itam jëggaani loo xam ne nekkul mukk ci lislaam lislaam santaane wut ko jàngalewut ko bal safaanu loolu la santaane moom la jàngale moom saxru wardi moom ñu doon wax ci gannaaw toxal na ci kenn ci kàngami mutasawifa yi mu ne man taawada afqaada nisaa'i laa yaflux koo xam ne aada woona miin na soxna yi nee na kooku du mën a am mukku li nga xam ne nii moom mooy ak texe ba tey moom saxru wardi mu toxal jëlee ci abu taalib al makki kooku di kenn ci waa tasawuf ak seeni njiit euh, abu taalib makki moomu toxal jëlee ci abi suleymaan ad daaraani mu ne abu suleymaan nee na man tazawaja faqad rakana ila dunia nee na képp koo xam ne takk na soxna kooku wéeru na ci àdduna dem na jàpp ci àdduna waaw dem na jàpp ci àdduna ba tey moom Sahru Wardi ci téeréem boobu di awaariful maarif mu toxal ci abi suleymaani daaraani ba léegi mu ne maa raaytu ahadan min asxaabina tazawaja fa thabata ala martabatihi muni abi suleyman neena gisuma kenn ci sunuy gaay manam mbokki tasawufami gisuma si kenn ko xamne tak na soxna daa di continuer sax ci martaba ba nga xamne fa la nekkon manam ci mbax ci ragal yalla ci jege yalla subhanahu wa taala neena dal lolu loolu gisuma ko xam nga li lu doy war ndax lolu buñ la ko waxe kon li ngay japp moy kon kat loolu dafay dox euh, sa diggante ak li nga xam ne nii moom mooy yàlla sa diggante ak li nga xam ne mooy matuk sa diina ji ba tey tuus yi jëlee tuus yi jëlee euh, moom ak attaar ñu jëlee ci ibrahim ibni adham ibrahim ne ida tazawaja alfaqiru fa mathaluhu mathalu rajulin rakiba safinata fa ida wulida lahu waladun faqad gariq mu ne suufiya bi nga xam ne taalibe bi nga xam ne dafay takk soxna nee na misaalam mooy comme koo xam ne daa yëg ci gaal waaw mu ne bu demee nag ba am doom su demee bu su su boobaa bu na yëg ne moom lab na nag bis ni lab na kon noonu lañ doon dëddulooyee seeni nit ci takk soxna euh, Bishr ibn al-Xaaris dañ koo wax bis ne ko inna naasa yatakallamuuna fiika ah nit ñaa ngi wax ci yow de mu ne wama asa yaquluun lu ñu war a wax ci man qiila yaquluuna innaka taarikun sunna yaanuna nikaax ne ko yow kat nit ñi nee na yow danga ngaa bàyyi sunna luñ si jublu mooy takkam soxna fa qaala lahum fa qaal qul lahum inni mashgulun bil fardi an sunna mu ne ah ne leen man kat damaa yittewoo farata wali sunna mu ne fal afdalu fi zamanina haada tarku tazwij mu ne suñ jamono jii kat gisuma lu ci gën nit ki mu bàyyi takkam soxna mu ñàkk a soxna شعراني بتي كتبقاتم بميتر جمال رباح ابن عمرو القيسي كوكوكي متصوفة ينجاكي يلا نتلي نكو وخم جينا قمنا موم رباح موم موكو وخ رباح نينا لا يبلغ الرجل منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولاده كأنهم أيتام wa yawi ila manazilil kilaab nee na nit ki pour mu yegg ci daraja jii di darajatu siddiqiya muy maqaama mu kawe ci diina pour mu yegg ca faaw mu bàyyi soxnaam sànni ko fee ca àll ba ba soxna si mel ni koo xam ne amul jëkkër jëkkër ja daa faatu faaw mu sànni ay doomam teg leen fee ba ñooña mel ni ay jirim lañ su ko defee nag mu dem seet béréb yi nga xam ne xaj yi fala la ñuy fanaan muy fanaan ak xaj yi ca béréb yooya mbokk yi lii de ay nusoos la ay texte la yoo xam ne mu ngi ci téere mu tasawifa yi waaye nag ñu jiitu ñi la comme tasawuf ni ma leen ko waxee cocktail la ñële mën nañoo wax lii ñii ñëw def leneen lu uteeg loola ndax tey mutasawi fay tey yii xam ngeen ne bunt bii di buntub takk soxna fa leen ca lislaam sant ñu yem romb nañ ko bëtt ko di dem waaw nga xam ne nga gis koo xam ne buñ la tuddalee ay doomam da waaru waaw ñee buñ la tuddalee ñam tuddee ne ay soxnaam lañ dangay waaru ngir seenu bari am na sax si ñoo xam ne ñii am nañ téeméer ñii am juróom fukk ñii am fanweer ak lu teg ñii am fukk kenn ku nekk ak ko bëggee rek noonu nga koy defee seetoo sax lislaam ni mu la ko waxee loola nag day firndeel ne tasawuf mooy cocktail boobu ñu doon wax rek la lañ def waaye ñii tey si suñ jamono jii ñuy dund dañoo def leneen lu uteeg ñi nga xam ne ñoo jiitu woon la ñu def kon lii benn jëggaani la boo xam ne tasawuf jëggaani na ko te fi mu ko jëlee mooy ki nasoraan bi kon incha allahu tabaraka wa beneen jotaay bii ñëw dinañ indi alinizaalu fi zawaaya wa takaaya muy beru gi nga xam ne mutasawifa yi dañ ko daan beru ca euh, seeni ruq muy ay néeg yoo xam ne dañ koo tabax euh, te du jàkka ñu difa fa julli ba tax duñ dem ci jullik mbooloo ga euh, di fa nekk ne dañuy jàng alquran wala dañuy dañuy zikkar te fekk ne lu bari sa ña fa nekk sax seen diina far xamuñu ko dégg nga di fa nekk duñ dem sa jàkka sax di fa jullee amaane si ñenn ñoo xam ne sax jihaad day am ñu nekk foofa si seen zaawiya yooya duñ dem sax jihaat yi ànd ak jullit ñi yooyu yëpp incha allahu taala dinañ si ñëw ci beneen jotaay wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته